Kiné comment tu vas. ça bien merci beaucoup. li nga sañ. <laughs> gis nga de. merci beaucoup. fi nga xamante ne mooy euh, ci Actubuzz te ñu gis ñu ngi sa teewaay fi nga xamante ne mooy si euh, projection bi euh, ak ni nga xamante ne def nga ko macha allah ah ci suuf suuf ba ci kaw ah teg nga ko ci temps merci beaucoup. teewaay bi. ah eh, kontaan ñëw eh, teew pour projection long métrage premier épisode Pod et am kontaan ci ni ñu nit ñu wuy see aussi kontaan aussi si ñun si liggéey bi. saa fii jàpp nga ne essai ak artistes euh, actuellement benn lañ. ñëpp benn lañ évidemment bi ñoo ko bokk kay. sotti jeeg def si la rek. mën a xaar si euh, quatrième bi. ah di ngeen gis leneen di ngeen gis euh, personnage yi évolué ngeen gis Kiné bu entreprenant di ngeen gis bu bu bu gën a bu comme ni ci nekk rek mu ngi dool yokk ci rek dolli ñeex. yokk nga wala nga wàññi tension bi da nga ko yokk wala nga wàññi. Ah, yow daal ñëwoon si yow projection bi daal bu ñu projeté film bi di nga gis. kontaan maa la gën a kontaan. merci beaucoup. je vous en le grand monsieur. xol lim def macha allah def nga ba mu baax. Ah, gis nga di jaajëfal ñëpp di leen nuyu di leen wax euh, mes encouragements à la à leur fidélité par rapport à la chaîne aussi lu am solo la. actuellement ñu ngi euh, waaw li euh, liñ ci mën a wax rek mooy ci kaw ci kanama ah, parce que gis nañ liggéey bu am solo bi ngeen di def euh, surtout vous ne manquez jamais les rendez-vous des des des des acteurs hein, de tout ce qui fait buzz au Sénégal c'est important. bu dee grand star. oui des grands stars. gis nañ sa teewaay fi nga xamante ni moo ci li nga xam ne yéen ko moom wax dëgg yàlla gis nañ tamit nit ñi ni ñu leen wuysee loo ci wax. waa day day day warawaat ne euh, nit ñi am nañ cofeel ci ñun. a chaque fois ñu woote rek nit ñi dañuy ñëw à chaque fois ñu woote et puis ñëw day gën a bëri euh, def nañu chaque fois ñuy jeexal benn saison wala ñuy commencer benn saison dañ koy def ak benn long métrage boo xam ni dañuy def euh, lancement officiel alors loolu aussi day wan ne rek chaque fois bu ñu koy def bu nit ñi ñëwee rek day wan ne ce que nous am na importance et puis mère de famille qui prend sa revanche loolu la ñu mën a xaar ci ci Lopez parce que gis nañ ni ci en pleine campagne lañ ko jëlee yóbbu ko prison et par son absence quelqu'un est venu entrer dans la vie de sa fille euh, tàng quoi waaw. waaw Lopez kon bu na da nga dafa war a tàng Ousseyn. non day tàng affaire bi li muy gën a dem Lopez di gën a tàng parce que Lopez moom du changer quoi. daa <laughs> bi kon doxal sa dofe bi kay maaleykum salaam internautes yi maaleykum salaam na ngeen def jaajëfal bu baax ñu man tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di béggee vraiment ci seen présence bi parce que on a besoin de ça de faire la promotion de lépp loo xam ne mooy suñuy produit moom nañ nekk di def nii donc di béggee fans nga xam ne ñoom ñu ñuy suivre tamit ñoom ñoo tax ñu nekk fi ba léegi donc vraiment c'est un grand dañu kontaan quoi ci événement bi nii quoi waaw vraiment euh, gis nañ ne projection yi moo la fi indi mais sa teewaay dëgg dëgg dëgg fi nga xamante mooy man tey fi ma fi teewee fans moo gën a tax ah, may teew fii quoi vraiment parce que lancement saison 4 bi ça veut dire qu'il y a eu 1 2 ba ñu yegg ci 4 donc am na ñu ñuy suivre am na ñoo xam ne ñu ngi koy apprécier ñu ngi apprécier suñu liggéey bi ak message bu ñuy véhiculer à travers ces séries là donc vraiment donc mbégte rek nañ ciy am quoi loolu moom fi indi waaw. gis nañu ne sax naa Sénégal ñu bëri xam naa du nga xàmmee quoi mais kii bokk na ci théâtre bi nga xamante ni mooy théâtre Billy Boy théâtre Fakman moom kii ci la bokkoon. Euh, kon boobu la yaay dund aar bi yow. waaw ba léegi ñu ngi dund aar bi man nag macha allah dama si judd ma fekk ko fi parce que sama yaay ci boppam moom artiste la donc on a fait que suivre ses pas donc euh, aussi gars yi gis talent tamit ci ñun parce que am na yeneen ñoo xam ne ay am nañu ay doom ñoo xam ne mais du ñu ay artistes donc ñun bon on a eu ce talent là et qu'on a su développer. bien sûr parce que lépp loo xam ne da nga siy jàpp rek da nga koy développer di si jàng di étudier xool ses comportements ak lépp. donc ñu dem ba di ci évoluer ba tey bon bon moo ñu indi ba fii quoi nit ci continuer di ñu suivre ñu ngi dem ci casting yi nit yaa ngi apprécier donc liggéey bu ñu laaj rek ñun ñu ngi koy mën a joxe donc loolu tamit am na importance bu bëri quoi donc di leen bëggee rek vraiment. merci beaucoup kontaan nañ. min tamit kontaan naa. waa Actubuzz. waaw waa Actubuzz donc maa ngi leen di nuyu di leen gërëm vraiment ci li ngeen di ñu suivre ak lépp quoi big